mooy kéet goom ne ko tënkoon mëbët yi ñu amoon mëbët àndoom boobu lañu tënk centrale à charbon bi nekk si Bargny danañ ko wecci def ko centrale à gaz boo xam ne waa Bargny ñëpp danañ ci mën a jariñu te dootul nekk lu ñuy ragal lu ñuy tiit pour seen wér gu yaram pour dimbalee askan wi ñu mën ko jotalee pour que waa Bargny mën a gën a gis seen bopp si teewaayu bërëbu liggéey yooyu xam ne ñoo ñoom ñoo dëkk dina ci dolli également bari ñi population bi yu si bari ay ndaw lañu am na jumtuwaay yu fi nekk di ay financement di DER di yu ndaw yi jumtuwaay pour 4 kilomètres de côte yi nga xam ne moom la bari ñi am ñu def fi liggéey boo xam ne géej gi nee nag moom ci kàddoom nee na géej ki mënu ko arrêté on n'arrête pas la mer avec ses bras ni mu waxee waaye géej mën nañu wàññi dangaram ba nga xam ne na muy joxee dana wàññeeku wax na ne kontaan na lool ci doomu Bargny ñi nga xam ne ñu ngi ci ay kuréelu administration di liggéey ak moom ak yeneen i kuréel yoo xam ne ñoo ngi ñu seen administration di liggéey ak ñoom rafetlu seen jikko si neef nañu nekk rafetlu seen taxawaay rafet lu dem seen xar ma dolli leen li ngeen am kilifa nag kàddu rek la am. bu ne defal ma ma defal la fexeel ba defal ko nañu fexe ba ñun waa Bargny ñu defal Macky Sall lu xolam sedde